allez bis ni tey lan moo xewoon Sénégal tey la fukki fan ak benn ci weeru mars mille euh, deux mille vingt et un le 11 mars 1978 ki ngeen di gis moom lañuy wax Serigne euh, Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma doomu Serigne Modou Moustapha Mbacké di taawu Serigne Touba Khadimou Rassoul bis ni tey kon la génn àdduna le 11 mars 1978 euh, moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma. Euh, bokkoon ci personnalité yi nga xam ne dafa amoon ay vertu morale ak humilité ak dignité bokk ci ñi nga xam ne àndoon nañu ak euh, njiitu réew bu Sénégal ak euh, mbir yu bari am na ci diggam balaa ma ciy gën a approfondir sax ndax yooyale mën naa indi ay jiixi jaaxe ci xelu doomu aadama yi waaye jàpp leen daal ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamadul Mbacké Gaynde Fatma ñu koy wax Sëñ Cheikh Gaynde Fatma Mbacké bis ni ki tey kon le 11 mars 1978 la génn àdduna ñu dem ci beneen information bu fi Diallo Allez Grégoire euh, très bien du courage kii ngeen gis mu ngi wuyoo ci turu El Hadji Moussé Diop di grand serigne de Dakar le 11 mars 1962 kon la génn àdduna El Hadji Moussé Diop grand serigne de Dakar moom mu ngi fi wutu woon ki ñuy wax euh, Abdou Koña Diop bi mu fa wutoo nag 1923 euh, El Hadj Ibrahima Diop moo ko fi euh, tof moo ko fi wutu kii ngeen di gis maam la wala jur la ci ki ñuy wax le grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar te di ko jàll lu ñu bokk kon le 11 mars 1962 le Sénégal euh, perdait El Hadj Moussé Diop grand serigne de Dakar. ñu jëm ci beneen bi ci topp avec euh, avec aussi euh, beneen way ki ngeen di gis mu ngi wuyoo ci turu Serigne Ablaye Niang jàngkatu xasida Serigne Ablaye Niang nag doomu ndar la bis ñi ki tey le 11 mars 2020 kon ci la génn àdduna le 11 mars 2020 la génn àdduna foofa ca ndar bi mu amee 93 ans ginnaaw ba mu feebaree feebar bu mm, yàgg ci la mujj wuy ji boromam ñu ngi ko denc ca Touba daana way way yu neex amoon baat boo xam ne mboolem mburit ku ko mësaan dégg sa yaram daw na ndax na mu daan jàngee xasida ya ak na mu daan defee ay olofal avec la complicité de Grégoire si l'élément est bien on va vous proposer un extrait de ce qu'il faisait Serigne Ablaye Niang xasida مسل عليك إن ربا عليك سلم من kon bis ni ki tey le 11 mars 1900 2020 astafurlah maanaam 1900 sax kon ci la Serigne Abdoulaye Niang gane si euh, génn àdduna foofa ca Ndar bi mu amee 93 ans ginnaaw ba lañ ko denc ca Touba loolu lañ leen doon fàttali une du jour bu ñu paree ci loolu lañ leen di jox tey Libération la ñu tànn Libération à sa une nous parle de business des industries pharmaceutiques autour de la Covid-19, sabotage de l'initiative COVAX pénurie artificielle ñaare bu adduna bi yëpp riiree wuti benn mbir ci wàllu ñàkk ñi nga xam ne ñooy industrie pharmaceutique dañuy mel ne lu banque seeni yoxo naan am naag amut ngir gën a yokk mbir yi Big Pharma des pratiques mafieuses titre le journal à une enquête l'enquête qui révèle les dix points d'un scandale à trouver et à lire la une euh, dans le journal Libération. en, en, en, en sous-titre ou en bas, on peut voir aussi en bleu, quadrillé avec la photo du président de la République, DEI national, c'est jeudi, réorientation du budget, audience avec les organisations des jeunes, fin du couvre-feu, les nouvelles annonces de Macky Sall à la une de ce journal. On peut aussi Euh, se réjouir en un ouf de soulagement Fallou Sey a été arrêté après sept mois de cavale Fallou Sey bokk na ci ñi ñu jàpp ne moom moo faatoon étudiant boobu di Joël Clestine euh, Philippe Ayi di doomu Sénégal boo xam ne euh, dañu ko agressé woon ba rey mu nekkoon ab étudiant lii lée la yéenekaay bi xëy xabaar tey allez on y va le saviez-vous ça va être un peu intéressant un peu drôle allez Adolf Hitler mi nga xam ne moom moo rey li ëpp ci humanité xam ngeen Hitler Hitler mhm. qui prenait des juifs qui les gazait qui organisait des guerres Hitler qui euh, qui a déclenché euh, la, guerre la guerre mondiale Adolf Hitler la mère d'Adolf Hitler avait sérieusement pensé à avorter mais son docteur l'en a dissuadé ci yàlla Ça aurait été une autre histoire s'il ah avait ah euh, avorté. Ah une autre histoire. <laughs> <laughs> une autre euh, histoire. mais je savais pas, j'ai dit, ah bon Mais ce docteur-là, peut-être il est petit-fils de Madial, <laughs> Monsieur Dadial, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des bonnes informations à savoir. On passe à l'autre image. Mmh. Le saviez-vous Quand un employé de Google décède, son épouse reçoit la moitié de sa paie par la société pendant dix ans et ses enfants reçoivent 1000 dollars par mois jusqu'à ce qu'ils atteignent moins 19 ans maanaam kuy liggéey Google boo génnee àdduna sa soxna li nga doon fayee ko dina jot xaaj bi fukki at ginnaaw boo dëddoo weer wu jot dasay doom ak nu mën ci tollu lim ba danañ leen jox weer wu nekk 1000 dollars 1000 dollars su ma juumul 500000 la. 550 000. 550 000 pour le moment. te bon comme dollar moom day yéeg di wàcc. day yéeg di wàcc yooyu. Alaaji Ndiaye. maa ngi laa siyaara baax. pour ma desere de mais lii moom wax nga dëgg yàlla man dama jox 1000 dollars yi rek man comme enfant de kii laa dama jox 1000 yi. <laughs> pour prendre exemple allez l'autre image le saviez-vous. c'est bon à savoir ces informations-là. Moi, je pense que c'est vraiment euh, utile. les crocodiles courent très vite, mais ne peuvent pas tourner facilement. Si un jour, euh, l'un d'eux est à vos trousses, courez et zigzaguez, il ne pourra pas vous attraper. maanaam bës bu ngeen demee ci booru dex ndax lii. Mhm. mooy jësit. ba ngeen dégg ne jësit a ngi leen di dàq dañuy daw daw bu gaaw mën nañoo sax gën a gaaw nit. waaye bu leen di dàqe bu leen daw jubal bu leen daw tàllal dee leen daw di jàddu koñ di damm di siksak bu ngeen ko defee daal mën ngeen ci mucc mucc c'est bon à savoir je pense que c'est bon à savoir hein? Oui. allez euh, ci événement yi ñu génn ci Sénégal téeméeri ndaw la ñu jàppoon 350 la lañu déféré 150 la ñu mujjee tëj ma dikk ak yéen ci lim bi Pikine ñaar téeméer ak ñaar ak juróom ci manifestants la ñu déféré ca parquet ba 125 manifestants ont été déférés au parquet Ziguinchor ak Bignona 8 jeunes la ñu envoyé en prison 3 déférés 4 40 manifestants euh, ont été arrêtés puis libérés à Mbacké euh, 27 jeunes ont été placés sous mandat de dépôt à Mbour, 20 jeunes ont été déférés, dont deux mineurs, et ils ont libéré finalement quatre jeunes. À Kaolack, trois jeunes, dont le manager du groupe Kergui, finalement, qui a été libéré, ouf de soulagement pour ses activistes et aussi Abdouba Commando Baye. À Louga, une trentaine de manifestations ont été arrêtées, 19 déférés, 4 placés sous mandat de dépôt. À Tambacounda, 5 personnes ont été arrêtées. lii lée mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kaso bi te doon manifester maa ngi ciy jaaraale di nuyuwaale président Macky Sall ma nga laa siyaara bu baax ndeem suñu réew mi am na yoon ndax loolu lañ ñuy wax nanu bàyyi li justice mu def liggéeyam ñun ñëpp ci fukki doomu Sénégal yi ak ñeent yi nga xam ne alkaati yi ñoo sox ay bal rey leen danoo bëgg nag ñu wax ñu ñi leen rey ndax ñi doon manifester ñoo ëpp comme mën nañ cee jàpp euh, juróomi téeméer mooy 500. du noonu la. waaw juróomi téeméer. Euh, mën nañoo war a mën a wër nag ñi tiire ay bal réel ba rey fukk ak ñeent ci suñu ay doom danañu leen jàngal kaamil danañu jooy suñuy néew waaye nanu fexe ba ñi def ñaawteef yooyu ñu xam leen ba ëllëg bu beneen yoonatee loolu bañ a am ñu ngi xaar.